di la jaajëfal aussi. tur beeg sant bi maa ngi uh-huh. uh-huh. li ma gàddu nii mooy nekk saabu bi nga xamante ne ñoo ko defaree à base de ceeb. Uh-huh. mooy saabu ceeb. à de ceeb. waaw. ceeb bi nga xamante ne moom la ñuy lekk moom laa jël nii transformé ko en la waaw. boole ko ak huile yoo xamante ne huile naturelle la yëpp bio la aussi. waaw. ah mais mais mu yeneen yi yi xam ne nii maanaam defaruñ ko ceeb nag moom lan la moom.

mooy xam nañ turkiment aussi. bi tamit base bi turkiment la. Mhm. am na savon yoo xamante ne yoo xamante ne tout aussi c' est des bio. Mhm. huile naturelle laa ko defee. Mhm. boo leen ko gisee mooy nii ngeen di yaakaar que ne ay meew laa si def. alors que c'est du ça. gis na ni ni mu weexee lépp ay huile naturelle la yoo xamante ne ma def sama mélange bi ak sama saabu. te ni ngeen ko gisee nii noonu la xewee. aussi noonu. la amee durabilité puisque boo waxee durabilité mooy maanaam dëgër bi lañ ci séntu. Mhm. saabu yu dëgër la. saabu yoo xamante ne bépp ku ko soxla rek. Mhm. boo kon boo ñu contacter mën nañ la ko defal nombre boo soxla rek dañ la koy jox aussi. naka lañ la koy contacter numéro bi ba bàyyi ko fi. sama numéro mooy nekk le 77 682 77 81. jërëjëf borom Fatick woo rek dina dina ma jot boo bëggee formation mën na la former boo bëggee quantité aussi